الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بقي yi ñu ngi sant di jilid di salmal ci muhammad sallallahu alaihi wasallam dikanya di ko ñaanal xeewal ak mucc moom ak i ñoñam ak i ku ko gam tagu ci yonam da ko rab bis denc bu loolu weesoo ñu len di denk di denk suñu bop ragal borom bi subhanahu wa taala ci jema a digal yi waye moytu tere bokk jam yalla yi ñu xamni kontan lo loo def loo xam ni ñëpp cay ànd lu kenn mënta am la ndax borom bi subhanahu wa taala moom ni nga xam ni moo bindu ñëpp moom lépp taxut ñëpp nangul ko kon lu borom bi subhanahu wa taala amul nag yaakaar naa mi ngi wërta yaakaar ni war na kaa mën a am kon dégloo ñëpp def lu ñëpp ànd lu mënta nekk la loolu benn xikma la boo xam ni nañ kaa dégg waaye yàgg nañ kaa bamtu waaye saa yi nit ki gën a gudd fan gën jaxasoo ak nit ñi dana gën a am yaqiin ci dëgg goo xam ne xikma boobu dëgg ko ndax nit ñi seeni rootuwaay dafa wuute seeni naanuwaay seeni xalaat dafa wuute seeni yëg-yëg ak seeni cafka dafa wuute seeni bànneex ak seeni gisin dafa wuute kon nak bu fekke lolu mo am anakan ci ñun mo mëna def lu ñëpp and ak lu ñëpp contact bo waxee dëgg te dëggu ci ni da nga metti nga dëgër bo noppé bu ñuy waxa yow wala ñu lay gis ngay nopp lu bari ñu da nga yek sa da nga xéet nit ñi bo dé bari loy ziaré nit di ko mu ni dangaa metti commencé laa ŋàññe boo leen visité wut demoo leen ziar ñu ne yow dangaa dagg mbokk mbokk commencé di la ŋàññe bu la yàlla defalee xéewal nga wan leen ko li iñaana la boo leen ko nëbbee ñu lay yadd ci nëbb gi nga ko nëbb boo leen waxee dëgg ñu fexe ba changé say wax boo defee lu rafet tamit ñu fexe ba indi ca njot lu ñaaw fexe ba ñaawal ko boo dee muuñ ñu ne dangaa faible boo dee ñàngal foo toll ñu ne dangaa violent boo dee baale ñu ne tappet nga boo dee yëkkati nit ñi di teg ci suuf ñu ne dangaa bëri doole kon lii day tolloo rek daanaka kon ñaar ak ña nga àndoon benn góor góor ak jigéen war a yor menn mbaam bu ñu yéegee ñoom ñaar ñëpp ca mbaam ma ñu ne ñuy ñoo gàtta xel bu ñu doxee seeni tànk wa man mbaam ma ñu ngi ñuy ñoo doxee bu góor ga yéegee bàyyi jigéen ga ñu ngi kii nekkut ku élégant lu tax muy yéeg di bàyyi jigéen bu jigéen ga yéegee bàyyi góor ga ñu ngi kii dafa yaafus dafa ragal soxnaam te ñeenti yooyu nag benn ci mën a nekk kon nag nit ñi mënoo tee mënoo fexe ba duñ wax moo tax al imaamu yi ci benn xasida ci xasidaam yu am solo yi waxoon ci yu mel ni lu am solo boo reetaanee ñu ne kii xanaa du téye boppam téye ay cëram boo jooyee ñu ne xanaa du muuñ boo téyee sa làmmiñ ñu ne mënta wax boo waxee ñu ne dafa bëri wax bayam ca wax jeex kon lam ko jeexalee rek mooy fa ay fa ay fa ay kontu anni mahma aradtu rida nnaasi la budda min an azum min an uzam am naa yaqin ni saa yi moo bëggee def lu kontaaloo ñëpp fokk ñu ŋàññi ma kon mbokk mi ci yàlla bu ñu bëggee am solution ci loolu nañu jéem a yeggale la des ci xikma ba ndax xikma bi mu waxee ni gërëm loo ñëpp gërëm loo nit ñëpp lu mënta nekk la waaye dañuy gërëm loo yàlla bii la wala objectif la boo xam ne kenn du ko bàyyi nit ku fu mu toll nay jugé pour def loo xam dina ci am ngërëmu boromam subhanahu wa taala loolu kenn du ko bàyyi kon nag bàyyil loo xam ne kenn mënu kaa am jéem a dab loo xam ni kenn du ko bàyyi maanaam na nga jéem a gërëm loo kontaan loo sa borom te bàyyi di jéem dox ci jema a gërëm gërëm loo ak contant bo nit ñi ndax lool mënta nekk mëno gërëm lo nit ñëpp no mëno def lu contant lo nit ñëpp comme ñim ñëwé ci hadith bi suñu yaay Aïssa radiallahu anha muni yaronte bi alayhi salatu salaam neena na képp ku sàkk jéem a lo nit ñi ci lo xamni dañ cey am ku sakku Kontan lo borom bi subhanahu wa taala ci loo xam ne da nga am merum nit ñi nee na yàlla dina kontaan ci yow waaye def nit ñi ñu kontaan ci yow waaye képp kuy sàkku lu neex nit ñi ci nga koy def ci lu naqari borom bi nee na borom bi subhanahu wa taala dina la mere def nit ñi mere la hadith bu alimama albani saxam na ko mbokk julit mi kon na nga jéema sàkku ngërëmu sa borom subhaanahu wa taala ci lépp loo xam ne yaa ngi koy wax wala yaa ngi koy def te nga def sa kanam benn objectif benn bii mooy fexe ba def loo xam ne day kontaan loo borom bi subhaanahu wa su ko defee yàlla dina la defal nit ñi kontaan ci yow waaye nangul la mbokk wax ma su fekkonte ne dangaa dem ci jotaay boo xam ni sa mbokk jegeñaale wala sa xarit moo ko woote nga tok ci bir jotay ba ñuy commencé di xuus di wax ci mbiru diine loo xam ne amuñ ca xam-xam waaye di teg lu ñaaw ci ñu baax ni ak ci borom xam-xam yi ndax da ngay noppi pour bañ sa xari ji mere la wala ndax da nga di fàttali li nga xam ni moo mooy li jaabu suñ la déggalut nga xam ni amatoo place ci jotaay ba nga dem sa yoon comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee bu ngoon gisee ñoo xam ne ñi ngi xuus ci suñuy aaya nee na nga leen dëddu ba keroog ñuy xuus ci wala nañ waxtaan woo xam ni mën nga caa bokk comme ni mu ko waxee tamit ci beneen aaya ni wa qad nazzala alaykum fi lkitaaba an ida samitum ayati llahi yukfaru biha wa yastahzu biha fala soo gisee wala nga dégg ñoo xam ne dañuy dugg ci li ñu dugg ci mbiru diina loo xam ne yow mënoo kaa dindi kon yow amatoo place ci jotaay boobu bu dee foo toogoon da nga fay jógee bu ko wala nga jóge fa wax ma tamit su fekkente ni dañ la woowoon ci benn xeexoo moo xam ngénte la demee nga fekk fa loo xam ni lu bon la moo xam bisim la wala yu demee yuñ fa teg ndax dangay noppi bañ a wax ngir bañ ñu ayibal la naan da ñetti wala da ngaa tar wala ndax da nga leen di pour ñu fay lool wala ñu dindi ko comme ni ko yonent gis ci yéen ko dindee ak loxo su ko mënul mu dindi ak làmmiñam su ko mënul mu lu ko ci xolam ndax loolu ngay jëfe wala ndax rek da ngay toog ca ba su fekkente ni laajee biir ko ñoom jëndul la pour bañ rek. ñu ayibal la wala ñu tagg sa diggante ñoom wala ndax da ngay xam ne jotaay boobu amatu ko place nga daal di jël say dàll jubal ci buntu ba dem sa yow kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ni kan kenn ku nekk ci ñun da lay arrivé ndax nag léegi da ngay jub jiital nit ñi bañ a wax wala ñu lay xas wala ñu wax ci yow loo xam day nurul da ngaa métti te ñoom xamul ni ñoom ñoo sàggan wala ñoo bañ a def li leen julle digal ndax foofu da ngay def li santaane ngir daw waxu nit ñi wala da ngay def li santaane ngir am ngërëmu nit ñi loolu kenn ku nekk ci ñu moo koy laaj moo koy tontu boppam bu fekkente ni te tere woo leen lu bon loolu nga xam ne moo fa gis moom nga fa gis dañuy ragal ni suñ borom subhanahu wa taala doon loo xam ni moom nga bon Israël doon def dal sa kaw maanaam rëbbum borom bi subhanahu wa taala dal sa kaw ndax suñu borom subhanahu wa taala bi nga xam ne dañoo rëbb ñoom ñooñu dafa wax la tax ñu rëbb leen ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا li naan mooy borom subhanahu wa taala ak di jalgati di weesu fi leen yamloo waaye di bañ a li nga xam ak di li nga xam ni lu bon سفيان الثوري رحمه الله وكيلون كي ابن ابي ذئب رحمهم الله نكو يو دي بورا غالي بورم سبحانه وتعالى مو فغال لا ليب لو خامي موم غالا لا سي نيت واي بورا غالي نيت ني نك نيت ني موم بلا يالا دي دوما منو لا جابلا تي دارا تي منو لا جارين دارا تي بورم سبحانه وتعالى كون نام لي ديك راغال بورم سبحانه وتعالى ibnu Rajab rahimahullah ne ko xamni woor na ko ni bépp mbindeef bu nek ci kaw suuf suuf la ko xamni ne am na lu ko woor ni bépp mbindeef bu nek ci kaw suuf suuf la nan lay jibalee top lo xamni ni suuf la ci top ki nga xamni moy borom mbindeef yi moy borom subhanahu wa taala nan lay jéem a kontaan di bégal ko xamni suuf la ci loo xamni malikul wahhab di borom subhanahu wa taala da cay ñaan mu ne ki def da dana xam ni ngi def lu yeme inna hadha la shay'un ajab kon mbokk yi ñu xam ne kon loolu lu ñu yàgg dégg la waye non la saxé def lu kontaan ñepp mën ta nek ndax suñu borom mu ne wallahu wa rasuluhu ahaq an yuqu in kanu muminin yalla ko yonanteem ñoo gëna yey yay pour ñu def ñu leen di bégal ñu def leen di kontaan loo su fekkee gëm gi ñuy woote woo ñu ngi ci ñun waaye jéem a kontaan loo nit ñi mënta nekk ndax yi tax mënta nekk dafa bari lool ñi ñaan borom subhanahu wa taala kan mu dafa ñu tawfiq ba ñu mën di xëy di kont ci lu koy kontaan loo waaye di jëflante suñuy mbokk julit comme ni ñu ko santee moo xam dañuy xas wala dañuy wax wax joo xam dañuy wàññi waaye bu ñu borom bi kontaane ci ñun bég ci ñun lu waaye mën a wax bu la wàññi dara waye bu ñepp andon gëreem la ta borom bi ñara la loolu اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واجمع على الحق كلمتنا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم اجعلنا ممن عبدوك كما تريد أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اقض ديوننا واستر عيوبنا واغننا من فضلك واغننا بحلالك عن حرامك اللهم انا نسالك في مقامنا هذا الفردوس الاعلى وان تعيذنا من النار اللهم انا نسالك صلاح النيه والذريه اللهم امنا في الاوطان والدور واصلح واصلح الائمه وولاه الامور واغفر لنا يا عزيز يا غفور